man la bëgg bàyyi damay ñëw chaque dimanche rek bëgg a waxtaan ak mbokk sénégalais yi nag bëgg naa waxtaan ci euh, France Afrique comme notaange bi nga xam ne nii dafa yàgg trop te dafa war a jeex te bëgg nañ ci waxtaan bëgg naa waxtaan tamit ci mariage précoce bi nga xam ne ni temps yi mooy lëmbe dëkk bi mooy xale yi nga xam ne dañ leen di maye te am ay mouvement yoo xam ne dañoo jug di ko xeex xam nga. bëgg naa ci waxtaan waaye bala maa ñëw ci waxtaan wi tamit xam nga dama bëgg ziyaare sama mbokku chrétien yi di leen wàcc seen wàccuwaay di leen wax ne gis nañ ñaan yi ñun Sénégal ñu ngi continuer di wax amin ndax lu am solo la ñaan yi am na solo trop trop trop waa Sénégal nag dafa nekk réew boo xam ne événement wu diine su jotee ole lieu kon ñoom sénégalais ñi jéem a xool lan mooy message bi ak lan lañ bëgg a jàllale pour nit ñi mën koo xam mais noonoo dañuy bëgg a sukkandiku ci lekk yeeg naan yi parce que soo xoolee tey jii nii événement fête bi nga xam ne nii moo am muy feetu pag yi tey ñëpp ñu ngi naan ngalax yi ngalax yi ngalax yi mais am na lu ëpp solo ngalax yi jéem a déglu message bi pour xam lan mooy solo bi nga xam ne moo am solo ci biir fête bi ak lan mooy ñu fête bi defe naa ne loolu moo ëpp solo lekk geeg naan gi bëgg a jël def ko rek jàpp ne moom mooy fête bi parce que lu am solo la waaw bala maa ñëw na dama bëgg a dugg ci Afrique parce que Afrique nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu ñu desal ginnaaw la dëkk bu ñu xeeb la ci àdduna bi dëkk boo xam ne la waroon na dépasser fii mu nekk mais saa su nekk rek dañuy am dirigeant yu bon am njiir yu bon yoo xam ne dañuy sàgganee seen askan te Afrique boo xam ne dana jug pour xeexal doomu réewam dana jug pour xeexal askanam pour Afrique war a mën a jëm ci kanam pour Afrique jëm ci kanam nag kenn mënu koo jëmloo ci kanam lu dul ñun doomu africain yi lu dul ñun doomu sénégale yi fexe ba intérêt bi nga xam ne moom la France di am Afrique saa su nekk continuer di jaamloo suñu doom yi continuer di jaamloo suñu maam yi continuer di ñu jaamloo intérêt boobu lañ bëgg mu dagg bëgg mu jeex moo tax jot na tey ñëpp taxaw. continuer di waxtaan diggante France ak Sénégal notaange bi nga xam ne France mu ngi koy not Sénégal ñu koy leeralal doomu Sénégal yi ba doomu Sénégal yi xam ko bu baax ëllëgee suñ doom yi war a ñëw ëllëg même ñin su fekkee mënuñoo dagg mbuum ak njaam gi sax suñu doom yi suñ ñëwee dagg mbuum ak njaam gi parce que dafa jot dafa jot Afrique am liberté dafa jot Sénégal moom boppam parce que tey jii nii rab yi nga xam ne sax ñoo nekk ci àll bi ah, léegi rab yëpp ñu ngi riposté parce que gaynde bi nga xam ne moom moo doon buuru àll bi daan sonal rab yi léegi gaynde sax dafa am problème ci biir àll bi parce que rab yëpp jug nañ di riposté pour jot seen liberté ci biir àll bi lan moo tax Afrique mënta jug li riposté pour jot boppam ci biir àdduna bi Afrique africain mooy dee du mujj fenn africain mooy dee dee bu ñaaw te du mujj fenn ba léegi suñu leader yi ñu ngi continuer di complot ak tubaab yi di not doomu africain yi ba léegi nii ba tey jii nii ku nag dafa jot ñu jéem a bàyyiwaat seen xel bu baax dafa jot ñu jéem a xam nga xoolaat suñu bopp vérifié waat suñu bopp jéem a booloo jéem a bokk ndey ak baay ñu jéem a dimbale suñu bopp parce que kenn mënuñoo dimbale loolu ñun ñi nga xam ne nii. tey jii ñooy sénégalais yi nga xam ne ñooy dund biir Sénégal ñu jug riposte jéem a dimbale suñu bopp parce que tey jii ni soo duggee biir Sénégal ay société francais kese ngay gis biir Sénégal partout tey jii ni biir Sénégal doomu sénégalais yi ngay gis ñuy taxawaalu partout ci mbedd yi doomu sénégalais yi ngay gis ñi ñàkk luñ lekk doomu sénégalais yi ngay gis ku jàng ba carrière du mën a am liggéey du mën a am place doomu Sénégal mooy investir fii ci biir Sénégal ñu bundu ko xeex ko ba société am daanu société tubaab yi ñu continuer di leen dooleel fii ci biir Sénégal léegi loolu lan moo koy waral parce que suñu njiit yi jugee ko ci ñun maanaam éducation bi nekk ci ñun ñun sénégalais yi ah njiit yu ñu am yoruñ éducation boobu parce que ñoom tubaab bi moo formanté seen xel ak seen xelaat def leen liñ doon. moo tax suñu ñëwee duñ jaamu soxlaay askan wi dañuy jaamu soxlaay tubaab yi xool leen tey ku ci mel ni Macky Sall Macky Sall pourtant dafa jaar ci ñàkk jaar ci xiif jaar ci mar jaar ci coono bu tar boo xam ne Macky Sall lépp lu sénégalais yi di dund Macky sàll xam na ko bépp coono boo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund Macky Sall jaar na ci parce que xam na ne coono bi am na lan moo tax Macky Sall mënta saafara jafe jafe-jafe askan wi. parce que dafa am complexe boo xam ne dafa nekk ci moom gis nga genre façon nit yooyu noonu waruñ leen di continuer di leen fal ci suñu réew parce que du dëgg du yoon Sénégal dañ ko war a jox patriote nit ki nga xam ne day gëm boppam bëgg réewam di défendre askanam fu mu toll askanam jaral ko su tëddee du nelaw askanam jaral ko lépp loo xam ne moom la mënti am ci àdduna man loolu laa gëm parce suñ bëggee Sénégal changé suñ bëggee Afrique changé foog ñu jéem a xool lan mooy dëgg ak lan mooy yoon ñu jëm cee teg suñu loxo ñu jëm cee teg suñu tànk pour développement am pour changement am. maria mariage précoce bi nag dama ci bëgg a waxtaan ko parce que jamono ji coow li bari na ci xale yu ndaw yi ñuy maye am ay mouvement yoo xam ne ñu ngi jug di xeex loolu di ko défendre naan xale yi kenn warul leen maye dëgg la xale yu ndaw yi. kenn warul leen may ñi dem sëyi parce que day teel ci ñoom waaye xale yu ndaw yooyu noonu kenn warul leen mën a gëmloo na leen war ngeen mën a jël protect di ko dugal seen saag yi di doxantoog moom te xale yu ndaw yooyu war nañ leen mën a défendre ba ñi nga xam ne ni tey ñoom la ñuy wooye kilifa ci biir réew mi yorok alalu réew mi di ko foye di sàcc xaalisu senegal di tëddee xale yu ndaw yi ci auberge hôtel yi partout partout ci Sénégal kon mariage mariage précoce boobu noonu ngay gis noonu man ma jël sama doom teel ko maye ah moo ma gënal ma bàyyi sama doom ci mbedd mi ay saay-saay di ko këf di ko tëddee di ko yàqal avenir am parce que su ma teelee maye sama doom dana mucc parce que dana am lu ko protéger parce que jëkkëram dana ko téye sàmm ko waaye su ma jëlee sama doom dénk ko mbedd mi wala ma dénk ko télé bi wala ma dénk ko loo xam ne ëllëgee duma ci am lu ma neex parce que teel a maye jigéen suñu maam yi ñooñu ko suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon xale bu jigéen ñu teel ko maye mu dem sëy suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon tey suñu maam yooyu noonu loolu noonu ñu fi tegoon noonu ñoom am na lu luñ ci jublu woon pour protéger seen famille pour protéger seeni doom parce que dafa am ay saay-saay yoo xam ne dañoo nekk ci askan wi tey jii nii ñoom ñooy yàq xale yi ñoom ñooy jël xale yi di leen saaraan loo dañ leen waxante dëgg te yàlla tax xoolal tey école yi xale yi nga xam ne ñooy jàng ci école yi genn wàll xale yëpp dañoo yàqu genn wàll xale yëpp dañoo dañoo yàqu parce que liñ leen di jàngal ci école yi bokkut ak liñ gëm da ngay jur sa doom ah, yar ko nu jur ko fa nga ko war a juree yar ko ni nga ko war a yaree teg ko ci yoon teg ko ci siraatal mustaqim muy dem école di ñëw tuuti mu changé soppeeku nekk beneen nit di dund lu ko neex di dund liberté di dund lépp parce que lan moo ñu ko yóbboo parce que dañoo bàyyi lu sin maam yi nekkoon ñun jéem a teguwaat ci leneen li nga xam ne waruñ cee war a mën a tegu parce que gis nga suñu maam yi suñu maam yi ah gis nga droit de l'homme bii ñu fi indi ak laïcité bii ñu fi indi wallahi fekkoon na sin maam yi di dund droit de l'homme bi gën a wér droit droit de l'homme bii ñu fi indi laïcité bi sin maam yi doon dund moo gën a wér fépp laïcité bi nga xam ne gars yi moom lañuy dund nañ leen waxante dëgg te yàlla tax nañ leen waxante dëgg parce que suñu maam yi daan nañ jël di yar seen njaboot yi di leen teg ci njub di leen teg ci yoon di leen former ba doom bu jigéen bépp doom bu jigéen bu ñu am daan na rusa def yenn yi daan na jombo def yenn yi dañ laan toog seen maam yi dañ laan toog jël seen doom yi jël seen doom yi jigéen yi na leen dem leen seen kër bàyyi diw ñi dem seen kër bàyyi diw seen bàyyi diw na leen xool leen ci xale yi kan ngeen ci bëgg ñu xool ci xale yi kan lañ ci bëgg ñu may leen soxna tak amul benn jigéen bu ci ŋàppi gémmiñam di wax parce que ñëpp ndigal lañ doon wéyee parce que jamono jooju noonu ñépp ay yarkat lañu woon sama doom su génnee ci mbedd mi su defee naka sudul noonu doomu diw mën na koo fekk ci diw mën na koo fekk ci mbedd mi dóor ko ba muy bëgg a dee su defee lu dul yoon te su yeggee ci yaayam suñ na ko diw moo ko dóor da yaayam da ko ci dollil ay dóor parce que boobu dañ doon yar njaboot gi waaye bañ indee droit de l'homme indi fi jaxas jaxase suñu njaboot yi jël xale boo xam ne su amee temps de at ñu ne loi may na ko pour mu dem ut carte caga pour dem jaay boppam ci mbedd mi ñu ne droit de l'homme moo koy protéger am nga droit dem jaay sa bopp ñu indi fi laïcité ñu ne lay laïcité mooy lan laïcité mooy nit ku nekk am na droit def lu ko neex est-ce que doomu aadama yàlla daf ko may indépendance boobu déedéet nit dafa am lu mu war a def am lu mu warta def parce que dafa am luy loo xam ne jëfu nit la am loo xam ne jëfu mala la am loo xam ne jëfu rab la nit nag danga nga war a xool ban nga ci moom nga doxee ko nga xool ban nga ban moo la ci ban nga ci moom yow nit ki nga jël boobu nga doxee ko moom la ñuy yàlla wax nañu nit dafa war a jëf-jëfi nit warul jëf-jëfi malaa mais jamono jii ni ñu ne nit nit ki am na droit lu ko neex def am na droit lu ko neex def moo tax jigéen di nekk ci télé bi di simmi ay awram moo tax góor guna léng taal facebook am xeesal ba weex tall di regeju di maquillage di passeelu di def yëfi jigéen parce que dañ na nit am na droit def lu ko neex xoola tey internet bi soo ci duggee da ngay na ne Sénégal amatul sax ay góor soo duggee ci biir internet bi pour yow góor jeex na senegal ay góor yuy xeesal ngay gis ay góor yuy taasu ay góor yuy fecci ay góor yuy regeju man damay toog ba mu yàgg sax man a Sénégal est-ce que du est-ce que góor jigéen yi ñu góor ñi parce que da dox sax si mbedd da ngay dox sax si mbedd daje góor nga jàppu na jigéen nga dajeel nga daje jigéen nga jàpp na jigéen nga dajeel parce que ku ci neex ku ci nekk lu la neex nga am droit pour def ko Afrique doxewul noonu Sénégal doxewul noonu parce que réew bu ci nekk da ngaa am sa réalité réew bi nga nekk bu ci nekk dafa am loo gëm gis nga ceddo yi avant diine l'islam di ñëw ceddo yi ñoo fi nekkoon gis nga ceddo yi sax ah amoon nañ luñ gëm am loo xam ne dañ ko loon jomba def am loo xam ne dañ ko doon rusa def am na loo xam ne dañ ko doon ragal a def ñoom ceddo yi parce que dafa amoon dafa amoon jom gu nekkoon ci ñoom ak ngëm gu nekkoon ci ñoom ba am na ci lu bëri dañ koy rusa def ñoom ba diine lislaam ñëwee am na ci lu baax loo xam ne lislaam da ko fee fekk waaye daf ko dëggal rafetlu ko boole ko diine ñu continuer loolu di ko dund tey jii nii gox boo mosoon dem ci Sénégal gox boo mosoon dem da fekk kilifa goo xam ne nii tey jii nii ah, su coow amee ci gox bi kilifa goog su génnee ñépp dañ koy ruus su waxee kenn bu ci teg baat su na jaar leen di ñëpp jaar nii su na def leen lii ñëpp def lii mais est-ce que kilifa yooyu gisati nga leen leen léegi biir Sénégal parce que ñun li ñu am muy valeur yi ñu am muy koom-koom yi ñu am moom lañ jël faagaagal leen ah jël li tubaab bi indi teg ko na loolu mooy lu baax ñun li fi suñu maam yi bàyyi woon ak ñun li li nga xam na ni moom la ñu waroon sukkandiku jàpp ci ñu jël ko gas ba mu xóot ñu suul ko na baaxul. de leen loolu fii bëri na ñuy xeex France Afrique bëri na ñu bëri ñu ngi combat France Afrique man damay rafetlu loolu da ci kontaan dëgg parce que France dafa war a dégager Afrique loolu kenn werantewu ko waaye nag nit su fekkee yow da nga bëgg a xeex France pour mu jugee koo Afrique il faut nga gëmloo nit ki lan mooy aadaam ak lan mooy cosaanam ak lan mooy ngëm-ngëmam yow mi koy xeex dama nga gëstu su histoire Sénégal. demal nga gëstu ji histoire maamu sénégalais yi ci lan lañ laan dox ci lan lañ laan sukkandiku nga gëm loo ko waa ji pour mu mën a bàyyi France mais soo fi nekkee rek naan ko France dégage France dégage France dégage mais moom moom xamul lu dul France parce que si loolu la juddu ñu jàngal ko ko ci école bi ci loolu lay dox ci loolu la ñuy wane ci télé bi ci loolu léegi yow da nga koy tegal programme boo xam ne nii say maam ci lu ñu dox yan yan culture lañ yoroon yan ngëm-ngëm lañ yoroon lan lañ doon jëfandikoo suñu maam yi nga nettali leen histoire góor yàlla yi ñi nga xam ne suñu maam yi nga xam ne tey jii nii ah dañoo yàgg xeex senegal pour tubaab bi bu mu fi am place ku ci mel ni Maba Jaxu Ba ku ci mel ni Lat Joor ku ci mel ni Jéeri Joor Ndeela ku ci mel ni ku ci mel ni bari nañ bari na ay jàmbaar yoo xam ne ni ay jàmbaaru sénégalais lañ. te ay histoire lañu marqué fii ci biir Sénégal mais doo gis mukk ñu jàllale leen ci télé yi doo gis mukk ñu jàllale leen ci rajo yi doo ko dégg mukk te ñooñu noonu dafa am solo ndaw ñi xam seen histoire bu baax a baax a baax su ko nit ñi xamee rek su nit ñi xamee seen maam yi ci lan lañ laan dox ak seen maam yi yan ngëm-ngëm lañ amoon ak yan culture ci lan lañ laan dox rek billaahi France day dégager. France day dégager foog ñu dugg foog ñu dugg ci biir Sénégalais yi waxtaanal leen jéem a gëstu ji histoire Sénégal jéem a gëstu ji suñu histoire maam yi ñi xam seen maam yi fan lañ tegoon seen tànk ñi fexe ndaw ñi tegaat fa seen tànk waaw suñu maam yi suñu maam yi dañoo amoon ngëm-ngëm bu baax rek suñu maam yi dañoo amoon ak dëggu suñu maam yi dafa am loo xam ne dañ koo jomboon a def tey jii nii. am na problème boo xam ne léeg-léeg da koy dégg mais ñu ci bëri duñ ci bàyyi xel sama doom duma ko may géwél sama doom duma ko may euh, tukkuloo duma ko may ràbbu sama doom du ma ko may tëgg est-ce que xam nga ne loolu tubaab yi ñoo ko fi indi tubaab yi ñoo fi indi loolu noonu parce que tubaab yi bañ dañoo defoon jàngat xam ne tey jii ah, tëgg yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal ñoom ñooy tëgg arme yi nga xam ne moom la seen maam yi daan xeexee ji mooy tëgg yi. rabbu yi ñoo laan rabbu lawbe yi ñoo laan yett <coughs> tubaab bi ba mu demee ba xam ne su bàyyi ñii nii lii seen développement la parce que tëgg bii nii suñ ko bàyyee mu dem su yàggee dana mën a defar ay armes yoo xam ne su yàggee réew mi mën naa moom boppam suñ xalaatee na ah, lawbe bii suñ ko kii ñi jaxase suñu maam yi léegi fexe ba dugal ci ñoom kii ne du may kii jabar kii ne du may kii jabar ñu nekk tëgg ak géwél ak géer ak yi ñu ne ci loolu ba ba xàjjaloo tëgg bi beru lawbe bi beru ràbb bi beru géer bi beru ñoom ñëpp ñi beru léegi loolu moo indi seen néew doole gi nga xam ne moom lañu néew doole tey jii nii <coughs> mais loolu tubaab bi moom moo ko indi mais suñu maam yi benn lañu woon bépp jàmbaar bi nga xam ne nii sampoon na fi xare di xeex ak tubaab bi su tëgg yi ñoom ñoo laan tëgg xeej yi nga xam ne moom nga laan xeexee ak arme yi nga xam ne moom nga laan demee di xeex tëgg yi ñoo ko laan tëgg tëgg yooyu noonu tey lan lañ tekki Sénégal tëgg yooyu lan lañ tekki Sénégal lu dul di leen diaboliser ñii naan sama doom du ma ko may tëgg sama doom du ma ko may lii sama doom du ma ko may lii demal siin nga xool tëgg yi nga xam ne ñoo nekk biir siin ay minti milliardaire lañ parce que lépp loo xam ne ci xeetu force la muy arme bu mënti doon tëgg yi ñoo koy tëgg demal Chine demal Japon demal France demal foo mënti dem ci àdduna mais ñun suñu tëgg yi nga xam ne dañ doon dañ doon tëgg ay arme ñoom dañ leen diaboliser xajala leen ñun population bi ku ci nekk naan du ma may sama doom jabar doo may sa doom parce que maa la gën kii naan maa la gën fekk kii maan maa la gën mais tubaab bi loolu la bëggoon pour ñu xajaloon moo tax dañu war a yeew bu baax war a waxtaanal suñu askan lan mooy seen ngëm-ngëm suñu askan lan lañ am xam nga nit ki li lim am ci nga mën a waxtaan ak moom mu xam ne loolu mooy dëgg ci moom mu jàpp ci war a mën a bàyyi lële France dafa war a dégager de gis nga suñu maam yi nii coono buñ manti daj fii ci biir Sénégal France moo leen ko teg dee bu ñaaw bépp dee bu ñaaw 1905 1905 tubaab bi amul bépp xeetu mbugal bu mu deful fii suñu maam yi 1905 tubaab bi taal na fi ay jàkka tubaab bi tas na fi ay famille tubaab bi génne na fi ay kilifa diine fii ci biir Sénégal si muy Seer Matiba mais tubaab bi moo ko tas maam El Hadj Abdoulaye Niass bàyyi bàyyi Niass fa la nekkoon. gars maa ngi jégaloo réseau bi mooy daw gars yi partagé leen vidéo yu baax maam El Hadj Abdoulaye Niass fa la nekkoon. ba tubaab bi ñëwee tas foofu noonu si lañ gàddaay dem Gàmbi coono boobu yëpp tubaab bi moo ko loon teg suñu maam yi du benn tubaab nag bu dul France France boobu noonu moo continuer di ñu not France boobu noonu moo continuer di ñu indil jafe-jafe ba tey jii nii ñu nekk di wax ak yow France moo not Sénégal France moo jàpp Sénégal te ne du ko bàyyi mu dem te ñun ba léegi ñëw comprendre loolu ba léegi ñun mënuñoo xam loolu kun dafa jot tey ñu jug posté ñun africains yi ñun sénégalais yi dafa jot ñu jug posté parce que gis nga nit bépp nit boo xam ne yaa ngi yaakaar développement ci sa bopp te gëmoo sa bopp bàyyil xel na doo mos a développé da ngay sonal rek sa bopp bépp nit boo xam ne yaa ngi yaakaar ne yokkute yaa ngi ko bëgg ci sa bopp te sukkandikuwoo ci sa bopp ak li fi say maam yi bàyyi doo mos a développé doo mos a dem France France du dara France benn réew la comme ni Sénégal nekkee réew France dëkk la comme ni Sénégal nekkee dëkk tubaab yi nawle lañ tubaab nit la comme ni nit ku ñuul nekkee nekkee nit te xalaat te xel mi nekk ci nit ku ñuul ah ak daraja ju nekk ci nit ku ñuul ak ngëm-ngëm gi nekk ci nit ku ñuul nekkul ci nasaraan bi nekkul ci tubaab bi lan moo tax nit ku ñuul ki mënul mënul gëm boppam gëm ne moom war na mën a dem war na mën a dépasser fii mu nekk tubaab nawle la mais ñu ëpp ci Sénégalais yi soo waxee lenn rek lañ lay tontu non fii tubaab bi su taxutoon ak moom lii su taxutoon ak moom lii su taxutoon moom parce que ñàkk xam ak ñàkk xalaat ak ñàkk gis-gisu àdduna moo tax ngay sukkandiku naan su taxutoon ak tubaab bi est-ce que ba ngay juddu yow di nekk liir tubaab bi mu ngi teew est que ba ngay màgg. doo gërëm yàlla mi nga xam ne moo la sàkk def la ngay nit ku ñuul def la ngay sénégalais nga màgg ci loolu di dox ci loolu ba toll na nga toll gërëmal yàlla parce que yàlla mi sàkk tubaab bi moo la sàkk waaw xam-xam yi nga fiy gis yëpp si àdduna bi ah yàlla moo ko fi wàccee tubaab bi gisoo benn tubaab bu judduwaale defar téléphone gisoo benn tubaab bu judduwaale defar armignon amul benn tubaab bu ko judduwaale da ngay juddu jël sa xam jël sa xel mi màccal ko ci dara li la war a jëriñ mais soo fi nekkee di tëgg di fecc mais sama waa ji doo yow doo dem parce que tëgg ak fecc ah ak sañse ak xam nga ne ci tele yi di def lu la neex loolu loolu mënoo ci développer sama waa ji xel jëriñu lu dul xalaat yàlla daf ñu sàkkal xel yàlla dafa wàccee àdduna bi wàccee doomu aadama jël àdduna bi teg ko ci loxo doomu aadama yi ñu war a jël àdduna bi lépp lu fi baax ñun ñoo ko war a mën a defar lépp lu fi yàqu ñun ñoo ko yàq ah parce que ñun ñooy xalifa yàlla ci kaw suuf kun tey jii ne lan lañ mën a seetaanee ah tubaab bi di contrôler àdduna bi ñun africains yi ñu toog croiser bras di xoole parce que suñu sàggante la parce que xam-xam yi ngi fiy gis yëpp yàlla moo ko sàkk wàccee ko teg ko ci loxo doomu aadama parce que yàlla dafa wàccee cent vingt quatre mille cent vingt quatre mille prophètes la yàlla wàccee si kaw suuf te yonent bu nekk yàlla jox na la benn xam-xam dama ci yonent yàlla daawuda yonent yàlla daawuda tëgg la woon dalaan jël weñ di ko tëgg te xam-xam boobu ci moom la ko yàlla wàccee gaa yi dem jàngi ji ko ah ak yonent bu ci nekk ak lii la yàlla wàccee jox la xam-xam boobu yàlla tasaare ko ci àdduna bi sinuwaa bi dem jàngi ko tubaab français bi jàngi ko américain bi jàngi ko la moo tax africain bi bëgg a croix cérébrale rek na moom ci ay tëgg ay fecc mooy culture am parce que lu ma gën a naqari Sénégal da ngay gis lambu lambu làmbu bëree lambu ji takkar naase Bécaye mbay toog ci télé bi gars yi naan non lii mooy suñu cosaan lii mooy suñu aada lii mooy mais ay dóorandey kur feñ bëree sëgg daan loolu loolu nan la mën a nekkee suñu cosaan nan la mën a nekkee suñu culture mais culture tëgg bi nag ah lawbe bi culture bi nag kanaa bu bokkul ci culture Sénégal kanaa rab bi li muy liggéey bokkul ci culture Sénégal ah, nit di nekk di nekk ci tele bi di tëgg di fecci ñi ne loolu mooy culture yu Sénégal loolu mooy aadawu Sénégal ban réew ngeen gis mu sukkandiku ci bëree ba développé ban réew ngeen gis mu sukkandiku ci tëgg ak fecc ba développé chaque jour fecc bu bees góor ñi di xeesal dëkk bi dellu ginnaaw kenn xamut fan nga jëm suñu xel yi jéemuñ ko nàccal ci xam-xam suñu xel yi jéemuñ ko xelli pour mën a bokk ci rang bu njëkk bi fan lay Sénégal di demee fan lay Sénégal di demee artisanal yëpp ñu ngi ci dëkk bi ñu waroon leen dooleel ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbiram defar mooy boroom xam-xam yi waaw muy lawbe bi muy tëgg bi muy ràbb bi muy koo mënti doon te yaa ngi màccal sa xam-xam di créer kooku dañ ko waroon dooleel sama waa ji parce que ñooñu ñoo yor Sénégal ñu ñoo war a yor Sénégal mais ñooñu lañ desal ginnaaw jël làmb ji jël yeneen tëgg yeeg fecc yi di ko imposer naan mooy suñu culture làmb du suñu su làmb nekkul suñu culture làmb mosul nekk culture Sénégal parce que dafa neex tey rek ah ñi jël ay millions xëpp ko ci làmb ji tey ji ne ku ci nekk bëgg a nekk mbër mais jamono ju njëkk ji jigéen bu sëy ba jur mbër ah yow yaay ku gën a texe yow yaay ku gën a ñàkk a texe ci askan wi parce que suñu maam yi suñu naan ñaan suñuy yëpp suñu suñu muuraan jigéen suñ muuraan jigéen ba di koy yëpp dañ koy ñaanal yàlla yàlla nga jur wëliwu yàlla nga jur barke yàlla na la yàlla muusal ci doomu mbër doomu mbër dañ ko laan muuslu parce que mooy ko gën a ñàkk a tekki ci askan wi doomu mbër kenn bugg ko woon jur mais dañoo juutal léegi mbir mi la baaxoon lañ bonal jël la bonoon léegi baaxal ko mooy Sénégal waaw réew nag su fekkee doxewul ay tànkam su fekkee boppam la juutal bëgg ko doxee du dem parce que bopp du doxukaay bopp xalaatukaay la tànk pour dox la mais senegal bopp bi lañ jël juutal ko na dafa war a dem jël tànk yi aj ko ci kaw du mos a dem réew suñu bëggee mu dox dañ koy teg ci ay tànkam mu dox dem waaw nañ leen waxante dëgg ñu delloo ci Sénégal li Sénégalais yi moom ñu joxante sénégalais ñu waxante dëgg waaw ñu waxante dëgg te yàlla tax tey jii nii géwél lan moo doon rôlam lan moo doon rôlu géwél géwél mooy ki xamaan histoire ki nga xam ne tey jii nii moom daan na ànd ak jéeri joor ndeela wala daan na ànd ak la joor ngóone lat mbaa daan ànd ak ñaani géwél yooyu noonu ñoom ñoo la mën a nettalil histoire u pour yow mi nga xam ne ni tey da ba nga juddoo yàggul nga mën a xam fi ngay teg sa tànk xam say maam ci lan lañ doon teg ay tànkam loolu mooy rôlu géwél bu njëkk loolu lañ doon doyee géwél parce que géwél bu leen jàppale géwél am na ci réew yëpp de dëkk réew boo dem am na géwél ñun suñu géwél yi duñ laan bind mais soo demee ci yeneen réew yi ñoom seen géwél yi dañuy bind dañu doon bind seen histoire réew yi la ñuy bind ñoom ñooy bindkat yi nga xam ñooy bind histoire réew pour génération bi ñëwaat suñ ñëwee mën a fekk ne ah ñun kat lii la fi suñu maam yi bàyyi woon lii la ñu bind liir ko ñu sukkandiku ci loolu pour dem mais ñun suñu géwél yi dañoo falsifier seen i mbir léegi ay tëgg ak fecc ak ñaanaatu ut xaalis loolu lañ jël def ko géwél waaye loolu nekkutoon rôlu géwél géwél daalaan toog ci pénc mi ñëpp toog ci pénc mi mu yor ak xalamam bu ndaw di ko yëngal di wax di nettali histoire jàmbaar yi di nettali histoire réew mi di nettali histoire bu njëkk loolu moo loon géwél est-ce que loolu gisati ngeen ko fii biir Sénégal est-ce que loolu gisati ngeen ko biir Sénégal bu njëkk histoire bu la mos réer soo toogee géwél mu wax la histoire bépp mais tey lépp falsifié nañ ko parce que foog ñu delloo ci suñu xel jéem a delloo ci suñu aada ak suñu cosaan ci fii ci suñu réew muy Sénégal. France mënuñ koo dégager mukk fii ñun xamuñ lan la fi suñu maam yi bàyyi ak fan lañu war a mën a teg suñu tànk bis buñ ko xamee France dootu fi naanati ñeex barke rasulullah parce que suñu maam yi mosu suñoo ànd ak tubaab bi waaw dafa war a leer suñu maam yi mosu ñoo ànd ak tubaab bi suñu maam yi tubaab bi nii la jaar ñoom ñi jaar nii waaw dañoo falsifier mbir yi couper coller ko bugg ñu gëmloo nañu suñu maam yi ak tubaab yi dañoo ànd leen waxante dëgg te yàlla tax ñun ay africain lañu ñun ay sénégalais lañ waaw te yàlla moo ñu def loolu te incha allah ci kattanu yàlla sénégalais africain lañuy ñuy doon ba keroog ñuy dee duñ doon mukk leneen leneen waaw am na nag ay tubaab yu ñuul yuy forcer seen bopp ci leneen waaw waaye ñoom la concerné mais ñun. ay nit ñu ñuul la ñuy bëgg a doon ba keroog ñuy dee ay sénégalais la ñuy bëgg a doon ba keroog ñuy dee kenn du ñu forcer si leneen moo tax saa su nekk ñu taal suñu Facebook di xeexal suñu askan pour ñu delloo ci seen xel yi parce que riposte dafa jot waaw dañoo war a taxaw laame lan mooy suñu aada ak lan mooy suñu cosaan ak lan lañ am ñu teg ko ci taabul bi wax ko ndaw ñi jàngale ko ci école yi pour xale yi mën koo xam bu baax. waaw loolu mooy dëgg waaw maa ngi ziare ñëpp den wàcc seen wàcc waaye tey xam nga live bi lii la woon rek ñëw rek pour waxtaan ak samay mbokk sénégalais pour xamal leen ne xam nga France daf ñu not notaange boo xam ne nii tey xam nga pour mu jeex foog ñu waxtaanal ndaw ñi lan lañ am ak euh, lan mooy seen cosaanu maam ak lan lañ war a gëm lan lañ war a topp ci lan lañ war a mën a sukkandiku. pour gën a am doole parce que France note bi mu ñu note ci ay points la waaw dafa xool li nga xam ne moo ñuy jëmale kanam mu teg ci loxo moom téye ko te loolu pour nga fippu du yomb parce que bés bu téye loxoom rek day métti ci ñin moo tax foog ñu jéem a ñin xeex pour récupérer loolu ba téye ko soog di mën a taxaw fipp loolu la waaw bàyyi xaaral ma jël la ama jël sama waa ji sooga gaa yi ku mën a dugg rek nga dugg mën a dugg nga dugg waaw ligne bi dafa dawal xam naa maa ngi ziare ñëpp di leen wàcc seen wàcc waaye di ñaanal ñëpp yàlla di sàkku ñaan ci ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah